waa ji convoqué nañ ko ah inquiété wun nañ ko bàyyi nañ ko mu dem tey jii kii kër sëriñam la demoon di ko ziyaare ji ñu dem te kat damay wax lu leer sëriñam bu mu fonk la ndax démb rek la dikk ci man jël ci un million ne ma may ma ko dama koy ziyaare ji sama sëriñ kon ku gëm sëriñam la imam muy ay nit fekk ko ci biir dóor ko léegi nag président de la république muy gardien de la constitution euh, ministre de l' intérieur Antoine Diome mooy yor sécurité intérieure gouverneur mi ngi fi préfet mi ngi fi commissaire mi ngi fi ñu ngi leen di ñaaraat encore ñii nga xam ne nii dañuy def li ñu teg leen ci yoon kenn mënta wax ne ñoom mën nañ taxaw ba kenn ku ne ñu teg gendre ma ci sa bunt waaye nit bu nit tooñee nañ ko teg ci yoon ñàkk nit teg ci yoon dana indi violence te bu ñu indee violance nag wax dëgg yàlla kuñ fekk sa kër bëgg laa toroxal da nga fay ba ci man nii kon nag maa ngi ñaan jëlee ko ci président de la république ñaan ko Sénégal ñaan ko kilifa diine yi ci wax ji ñu wax ñu jéem a téye seen i nit ñu bàyyi violence bi élection ki la contre du sa ennemi nañ bàyyi loolu te tooñ baax na waaye li ma leen di wax rek nañ bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daawatul mazlum laay rodd walaw kaana fajiran kon nag ñi ngi ñaan yàlla ñi ngi yàlla ci barke nit ñu baax ñii tooñ lii yàlla fayul ñi euh, yoon même boo porté wul plainte le procureur war na taxaw bu gisee violence je pense que plainte loolu c'est du civil la waaye droit public Alioune moom ko gën a xam suñ déggee ñu ne tey am na ay nit yuñ viol yuñ dal dóor police war naa jóg dem def enquête xool ka tooñ mu teg ko ci yoon ndax kat ëllëg ki ñu tooñ mën naa fayu de mën naa fayu waaw te loolu nag da baaxul nañ nañ moytu loolu fekk ñi ñi tooñ ak ku mën a doon ñu teg ko ci yoon buñ ko tegee ci yoon rek jàmm am jàmm am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi Fatima bi nga xamee ne amoon na ku sàcc ñu ne dañuy dagg loxoom ñu ne mbokk la kenn dagg loxoom daw daw ne law an na Fatima bintu na nabiye saraxat laqatantu yada Fatima mii bu sàccoon ma dagg loxoom kon nag nañ jóg ñu teg ñi nga xam ne nii ñoo ñetti tooñ yi ñu gis ci résultat jàmm am alunte na ngi nii looloo ko fi indi na xam ne ñun ragaluñ sori nañ fu ñuy ragale waaye ñii tooñ nag nañ leen teg ci yoon ñi ngi toog di dégloo na ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international